voilà gars yi maa ngi commencé révélation yi parce que dafa am ñu waroon xaar yegg si nañ quoi voilà léegi révélation yi laa bëgg a tàmbali incha allahu rabbi kunkande nee na day xar géej gi Sénégal moom loolu la wax loolu la kunkande wax la ne moom dina xar géej man ma leen di wax que ni jouru tam xarit jouru tam xarit noté bu baax li may wax jouru tam xarit képp ku ma fekk armeeru Yoof nga am mbokk mu fa de armeeru Yoff diggante 2010 ba 2021 ku ma ku bëgg a am mbokk mu décédé diggante 2010 ba 2021 boo ma fekkee armeelu Yoff soo bëggee wax ak moom moom ma may la cinq minutes nga wax ak moom da wax ku ma fekk armeelu Yoff jour tam xarit boo amee mbokk mu décédé diggante 2010 ba 2021 bii nii ñu nekk nii ma may la cinq minutes nga wax ak moom dégg ngeen kon bu tànn xam ngeen lu du xar géej voilà loolu benn la ci yi may def ñaareel bi ci topp mooy ñaareel bi ci topp mooy 45 jour laa leen may 45 jours biir assemblée nationale biir assemblée nationale laa yor 45 laa leen may dina am kilifa gu fa ko wax bind leen bu leen neexee bind leen ngeen teg li may wax du deñ 45 jours laa leen may biir assemblée nationale dina am kilifa gu fa dee biir assemblée nationale man maa leen wax loolu noonu. beneen bi ci topp mooy jël leen seen agenda di noté musicien bu mag mu ngi waaj a dee xam naa ne di ko des ci kaw suuf biir Sénégal bëreetul jël leen seen big ngeen note man maa leen ko wax bu ko desee maanaam bu ko desee deux semaines trois semaines bëri na da ngeen wax biir Sénégal musicien bu mag dina fa dee fii ak ñuy def deux semaines gën gaa bëri trois semaines waaw. naa bëri trois semaines man maa leen wax loolu noté leen man waxuma waxu caaxaan foofu ma kafuma kafluwuma sama ruq laa nekkoon toog jàpp sama njàmbur ñu ñëw génn ma si sama ruq ay fenkat yu mel ne kànde toog amee biir Sénégal yaakaar na ñoo moom biir Sénégal dinaa leen wax nag léegi mayetuma benn sëriñu tariyaax buy fen biir Sénégal nga génn di la wax lu la neex muy Kunkandeeg Musta Tandeeg Ablaye Tandeeg Paate Tande laa ci yamale ci sëriñu sëriñu tariyaax yooyu noonu noonu noon noonu ngeen di dégg ñuy lëmbe biir Sénégal maa leen ko wax may naa leen fii ak 45 jours ñenn ñi danañ dem kaso man maa leen wax loolu noonu. fii 45 jours am na sëriñu tariyaax ya nga xam ne danañ dem kaso bind leen de lu may wax lu may bind li may wax du ma ci jaaraat ndax lu ma leen wax dëgg la voilà lu ma leen wax dëgg la man waxuma waxu caaxaan.